di fi loo xibaar yu wér te wóor e ci wàllu xibaar yi sax dañuy àddu rekk ci communiqué de presse bi nga xam ni association nationale des chroniqueurs judiciaires bu Sénégal maanaam ñi nga xam ni seen xam-xam dafa màcci rek ci wàllu yoon nekk fii ci Sénégal ñoo ko daal di fësal di jàppale rek ki nga xam ni mooy seen nattango di seen nag xarit di seen rakk wala mag muy kile di Pape Ndiaye journaliste chroniqueur bile. moom tamit liggéey foofee ca Walfadjri ginnaaw rek biñ ko daal di jàppee nag daal di teg rek juróom-ñaari rek accusation ci ay ndoddam yu ci mel ne rek yëkkati ay kàddu yu wérul jëm ci magistrat bile wa itam daal di wax rek wax joo xam ni amul fenn te juridictionnel bi da koy daal di tere loo moo moo waral nag kile di journaliste bi di Pape ñaw jamono ji sax juróom-ñaari fan ci weeru mars bile lañ ko daal di yóbbu foofee nag ca prison bu Sébikotane woon ginnaaw rek kàddu yi mu yëkkati woon ca émission bu mu doon amal foofee ca Walfadjri tax na rek association bile ñoom taxaw nañu temb daal di ñaawlu lu ñu mel rawatina jàpp bi nga xam ne jàpp nañ ko seen nattango bile ji wax ne ñoom itam duñ ko bàyyi benn yoon dinañ ànd ak moom jàppale ko ci jafe-jafe yi mu nekk yile ñu jàpp ni sax jàpp bi nga xam ne jàpp nañ ko journaliste bile daal di koy xañ sax liberté de presse loole teguñu ko fenn di koy rek gunge ca naqar ba mu nekk rawatina nag ca prison ba mu nekk sax ndax ña ngay xam ne ni place journaliste nag nekkul ci biir kaso waaye nag ba nga daal di nekk rek ci biir rédaction yi.